على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى الله وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اغتير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأعذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فالطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أغزى وأسى قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي الصول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضيق وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى منتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والحدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك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 الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في زملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتخى عليه السلام وهو بالجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعب بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيرا وتوبوا, إلي وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العيسيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي القسوات المردية صلى الله عليه وآله وصحبه ذوي الأردية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتقس ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ين بك جل ديني بك الإسلام ديني يب أكفون منني رواتني بك جل ديني نكال تريومي يب نيجي لين دي نوي تترو الخليفة العام للطائفة المريدية ميسرين شيخ محمد المنتخى مكة أيده الله ونصره wa atamma jamiha masarii mi ngi leen di nuyu mi ngi jokk bokk lislaam gi ci ñépp mi ngi te bokk gi bu baax ki nga xam ne moo ko yeew ak diggante mu bokki jullitam yi ak kilifa yi tariixa yépp di ko yeesal di yeesalit li ko lëkkale ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ bi mi ngi leen di yeesalaatat di leen xamal ne mi ngi fas yéene rek ànd ak yéen ci liggéeyal sëriñ bi ci diini ji liggéeyal ko nam ko bëggee rek yàlla na nu yàlla tawféexal nag ni ko sëñ bëgge ñu nekk ci way ci ndigalam te demuy ay tereem la ndax loola rek sunnaam loolu moo indi tabaski gi it ñuy dundal sunna suñ maam Ibrahima ndax suñ maam Ibrahima da yàlla daf koo nattoo natt bu jafe yàlla may ko mu def ko te moom yàlla da ko def muy ak xaritam mbir mu ne xarit daf cay am Ibrahima xalilullahi loolu coobare yàlla la xaritu yàlla da koo xëy rek nomee ko loolu. bi yonent bi ñëwee mu ne ko na nga topp sunnaam moom nag lim defoon waaye nag lu jafe la falamma balaga maahu saaya qaala yaa bunayya bi ko yàlla mayee doom falamma balaga maahu saaya qaala yaa bunayya inni araa fil manaami anni adbahuka fanzur maazaa taraa qaala yaa abati if'al maa tu'mar satajidunii inshaa allahu min as-saabiriin falamma aslama wa tallahu lil jabiin وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم لول موي سولوس بس بي بي إبراهيم ديمي با نيكو القرآن نتلي دوم جي ماغ نا با با تامبلي مانا دوخ اندك موم borom xam-xam yi firi alxuraan nag nee nañ booba mi ngi toll ci juróom-ñaari mu ne ko damaa gént ma di la may xool ba xam loola ci xalaat mu ne ko li yàlla digal ci man def ko ndax am na kersa ci doom ji doom ji am na kersa ci moom waaye muy natt rek mu ne ko nag li la yàlla digal insha allah da ma fekk ma doon ab muñkat fa lamma aslama bañ wommatoo nag ci ndigalul yàlla ay istaslama waqadaa wan xaadaa li awaamirihi foofee nag wa tallahoo li jabiin mu daal di koy nërmeel ci suuf si tërali ko ni ñuy tëralim xaram genn wetu maarub jéegi tëdd ci suuf mu jël paaka bi daal koy teg ci boli gi ca minan waaye sun borom wax sidna jibril na ko bu paaka bi laal euh, boli gi mu daal koy moom mi ngi jàpp ne mi ngi reen doom ji nekk yàlla jëlee na am xaas mu mag jote ko ko ci àjjana mu rendi ba noppi rek gis doom ji taxaw ci gannaawam moo tax yàlla ne ko la nga doon wax dëggal nga sa gént nga jëfee nga ko naka noon nag noonu laay fay ila kasaalika najzil muhsiniin mooy naka noon nag képp ku am kóoluti ci man tey rafetal noonu laa lay fayee te duma la wor inna haada lahuwal balaa'ul mubiin lii nag mooy ixtibaar bu gën a wér examen bi gëna wër mom la doon def sa sama diggante yow waye matal nga ko ma dal mu dal koy jot kon nak bis bi bis bu maggalah, la ndax lo liko andi boko sété xamné lu rëy la ba mu fakkee rek e, dom ji mom da koo wax muy Ismaahila ci li li ñen ñi wax ñen yi dañ ko bëgg jiñ ne ay wérant li ci am mané ko usdud ribati li alla al tariba wasrif basaraka anni mu ne ko yeewal bu baax ba ma ba bu ma yëngutu la ko dom ji digal te fexel ba bul ma xol ndax kon danga ma yeeram ndeysaan yalla daal di ji dal teud mu def ko nam ko wara def yalla la len di fay nak daraja ji sa bu agsee ñu fàttaliku len seen daraaje ci yalla di gëna yok xamé nañ ci yit ci li ne ndeké diisoo baax ndax bi muy diisoog doom ji naan ko fan zur maza tara xoolal ba xam looy gis ci li ma yàlla digal daa mel kuy diisoog moom sunna si diisoo la bëggoon a indi ndax xamee nañ ci ne ndeke suñ maam eh, eh, waaye waaye diisoo wutoon moom ngir ngir ngir jël maanaam daa bëggoon a xam luy xalaatam rek waaye diisoo wutoon moom ngir jiima li ko yàlla def mu jiim ko dindi déedéet waaye nag ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوتن نفسه على الصبر دا بغونا خام لي دوم جي فيم ني رك بام خولام مانا دغور مو مانا موني واي بيم كو واخه نوم نيكو ديفال لي لا ديغال مو دالي رومبالي باكا بي واي فلم تمنع شيئا بمانين وامر السكين هلا هلا حلقي فلم تعمل شيئا بمانين من القدره الالهيه يالا ديمبلي نكو نك با باكا مونتا دغ دغ دارا دارا sunna diisoo googu ma doon wax nag léegi ndeke ndeke xamee nañ ci ne suñ maam Ibrahima sunna diisoo la bëggoon a def ci doom ji moo tax muy diisoo moom bi mu diisoo moom mu ne mu daal koy wax ne ko wéel ci lii la yàlla digal ñu xamee ci ne ndeke aadama bu diisoo woon ak malaaka yi kon ba ko yàlla ne bul jegee garab gi du ko jege law kaan law kaana saawara aadamu almalaikata fi sajarati la ma akalaha loolu loolu borom xam dal dalloo ci loolu kon nak bis la bu mag ndax fan yi ci alquran da ko tuddu ay yon wal yaskurillah fi khurujihi min bayti mu ñëw ba tax ñu bëgg sa boy génn sa kër ci bis bi nga wax allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wasila di tuddu allahu akbar fi iliman ji ñëw ndax yàlla dafa am ñaari bis yu yum tuddé fan yi ñu toll ay yaamun maalumaat tuddee na ko mooy fan yi tawaski gi ay mahdudat tuddé tuddee na ko mooy fan yi minan nga xam ne démb nga xam ne bisub tabaski lay tàmbali ba ak ñetti fan yi ci topp maanaam maanaam buñ tabaski ba ci suba sa lay tàmbali moom ayaamul maadudaat ayaamul mahluumaat nag bisub tabaski lay tàmbali loolu moo leen wëtale ñu bëgg nag bu agsee saa bu julli gi jàllee ba ca àgg ca tisbaaru bisu ñeenteel ba saa boo sëlmali nga wax allahu akbar yetti yoon ilimaan ju ci jàkk ju ci jàkkat ju ne mu wax ko bu ko xawé faté yit fi génn gu jakké ja man nako wax ku julli ba nopi bal nga fi fi fi ñu ci tisbaru bisum ñentel ba boo ko war nga ko wax ndax bis bi day bu mag bu ko defé ku fi joggé it ma né rendel sa bop mo gëna def sunna boko mënut nga inabatu wutal nit mu rendil la waye wa dhabha wa sabha bi yadihi mo gën tabaski amna solo ba nga xamné ne bu nit jappone tabaski farfatu ci digënté bi danañ laat ndona yee ba xam ndax da ngeen wéyal tabaski mu am déet walil waarisi infaaduha bu boobaa ndona li mën naa wéyal ne ne sa li baayam jàppoon ci jàpp ne ne dana tabaski tabaski man danaa ko wéyal bu tabaski lan nga ci sañ mooy boo lekk ak saraxe ak joxe te yàlla tax wa jamhu akalin wa sadaqatin wa i'taayin ay ihdaayin yett yooyu nga ci sañ waaye nag mu ni hal bayhu dara lu bokk ci tabaski sañoo koo jaay même ki lay defaral xar mi sax suñu ko fay ci yàpp wi loolu ñu bari xamuñ ko bu ko mën nga koo fay ci leneen ci xaalis waaye ne ko defaral ma ma fay la nangam ci yàpp wi loolu dañ ko aaye ndax bu baax de ngën liit muy der bi ak kawar gi suñu koo jaay yoon dala koy aaye loolu fokk ñu fàttali leen ko képp koo xam ne ñëw nga fekk ilimaan raw la te allahu akbar jutoo ko waxit wa mudrikul xiraati yukabbiru kooku war naa kàbbar noonu la ko téere yi waxe war ngaa def kabar yi bu dee ci rakka bu njëkk bi nga def juróom-ñaari kabar bu dee bi ci des nga def euh, juróom juróom ak ba ngay jógaale boo waa juróom rek ngay def bu ko defee nag ki nga xam ne la jot moom juróom lay kabar bu ko defee nag ngeen xam ne solo solo soosu lépp noonu laa amee bu ko dee kii rendi xar mi na wax bisimillahi wallahu akbar loolu mooy mooy mooy mooy li leen di wax ci tabaski yi bisimillahi wallahu akbar te boo xasee dawal paaka bi fii muy daggal dagg boli gi ak ñaari sidid yi nga xam ne ñoo dar boli gi muy wada jëy ni feeg dëggu leen bul teg paaka bi paaka bi nanguñ nga daa nga tàmbali ko ba mu yàgg nga ne nga ne nga ne nga ne nga ne beneen wala bokk dang ko cay bàyyi di ko def bañ teg ko ca bañ teg ko ca waye do teggi sa loxo nu ngu teggi sa loxo boo ko dee sam da yak sa sam rendi bu ko dewe nak tay waxtani fiñ ko bëgg teunk moy kersa ci la ko bëgg a ndax benn borom xam won dafa wax ne al hija al haya libaasun saatirun wa xijaabun waaxin wa sitrun min alcaybi wa huwa axu alcafaafi wa alifu ddiini wa raqibu alcismati وعين كالئة تضود عن الفحشاء وتنهى عن ارتكاب الأرجاس وسبب إلى كل جميل وقال أحد العلماء لا ترضى قول امرئ حتى ترضى فعله ولا ترضى فعله حتى ترضى حقله ولا ترضى حقله حتى ترضى حياءه فإن ابن آدم مجبول على أشياء من كرم ولؤم فسا خوي الحياء خوي الكرم وإذا دعوا الحياء خوي اللأم لوم وبينما كان أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مارا بسوق البصرة وكان ما هو غلامه قنبر فوقف أمام غلام أمام غلام يبيع أثوابا فقال يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم فأتى غلام فأتى غلامه ثوب ثلاثة دراهم وأخذ لنفسه الثوب الثوب ذا درهمين فقال له الغلام قص هسا أنت يا أمير المؤمنين فإنك تعمل المنبر وتخطب الناس فقال له أمير المؤمنين كرم الله وجهه وأنت شاب ولك بشرة السباب وأنت وأنا أستحي من ربي أن أن أن أتفضل عليك فإني سمعت رسول الله رسول فإني سمعت رسول الله يقول ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون كرسا بروم خما دي نيو خني موم جورد لا موراي غولا داج كاب لا دا نا سوترال نيت سي ايب دا نا تاخا فيغو موي مبوكم فيغو ريك دا نا مو تاخوك ديني ناخ مونيو تاخاليكو دا نا لا موسل اب بدل بو خن دالاي واتو با نياو تيف دولا دال dalay tere it laal lu bon sabab la boo xam ne moo lay jëmee wa sababun ila kulli jamilin lu rafet lu ne kersa moo la ci xiir nga jëm ci am na ci borom xam-xam yi ku wax ne bul bul gërëm loo waxi nit feeg xamoo jëfam waaye bul gërëm jëfi nit feeg xamoo xelam waaye bul gërëm xelum nit feeg xamoo kersaam fu mu toll kersa doomu aadama dañ koo móol ci ay yëf muy baax ak yamaay lu umu mooy yamaay rek la uma mooy ya la mooy euh, ci wolof ñu ngi ko daa waxee ab soxat ab soxot soxot bokkut ak soxar soxat mooy ku yamaay jikko soxat mooy ku iñaan soxat ci mooy baatu wolof dëgg mooy ku di di dafa ab soxat la mooy ku yam jikko jikkoom def rafetut la ko wala fi daal suturaale bu sa bu sa kersa dëree nee na nit doomu aadama dañ koo móol ci baax ak jikko yi ju yamaay boo fexe ba sa kersa ëpp doole bu boobaa sag baax mooy not boo fexee ba sa kersa doyadi sag jikko ju yamaay mooy not yàlla na ci yàlla am na boo xam ne ah, ah, ah, ali dafa doon dox ci marché basra xam nga basra fa la ñu yóbboon capital bi ginnaaw bi ali yu faloo mu ànd ak goo xale bi mu daa àndal nga xam ne mooy bëkk néegi mu xon bur la tuddoon ñu ñu romb ñu mook ali képp ñu ànd ali dafa woyofoon mook ñoom ñëpp dañoo woyofaloon adduna muy jënd ay yére mu dem ca marché ba fekk ki jaay mu ne ko waaw mbu juróomi dërëm di laa yor ndax mën nga ma cee jaay ñaari mbubb yi ñaari mbubb yu tolloog lii waye dina ko waw bi de mom ñetti dërëm lay jar joko ñaar mu daali jël bi dal bi tolok ñetti dërëm jox ko xalé bi mu andal jël bi nga xamne mom ñaar dërëm lay jar mom ali xalé bi ne ah amirul muminina dimbali mom bu ko sol bi yow yow mi nga xamne yaay yek ci kaw min bar ñi ñi di la xool ngay khutba yaay yilif nit ñi ya wara sol mu mu ñetti dërëm mi man ma sol mu ñaar mi mu ne yow waxambaane nga sa waxambaane mi ci yow ta ci yalla mes ma appelé la dara ndax deguna yonent bi ne de ñi ngeen di nekkal de len len solal ci li ngeen di sol di len lele ci li ngeen di lek kersa mo tax mu sidna omar am bo boo xam ne ci minbar bi al burudul yaman ya mbubbi yamaan yooyu dañ daa séddale lekk ay xam dañ ko jël yaman ño fi dàqoon tiise bobu ci waxto woo yi nak ku ne am ci men omar it muy bëgg ñew waji taxaw ne ko taxaw bi mu xutbaa ba noppi mu ne ko taxawal mu ne ko taxaw mu ne nga sa mbumi yow xamna ni am njool nga am nga yaram njool nga te gis na ni sa mbumi jot na la kon da nyari jël ñaari os wocc ñu Omar ne ko ana Abdullahi Abdullahi Omar ñew dom ji mu ne ko mbu lu nu mu demee mu ne ko may mbumi mi ma nga boole sofale ko mu don mel bu mu ne ko di séddale dara ëppali leen ci haya ko waral kon kersa jikko la joo xam ne day wommat nit jëme ko ci teet lu bon ak gàttañ lu dana tax kenn koo séqal ak feeg baalu woo ko ak doom am jàmm kersa dana tax ci nit mu yëg xubóot yëpp dox diggante mag boromam wal xayaa yanshau min sonri insaan bi xubóot yëpp te yaa al maabud da nga xam ne yàlla mi nga war a jaamu da ngay am kersa sa digganteeg moom wa min taqsiri waxtu bu ne yaa ngi nan lima ma sama diggante yalla te difuma ko man ma ngi ci rus nak sama yalla te fek sa conscience rek moom yow dong da ngay nek ci sa ngeeganaay rek ngay waxtanal mu wax lol ngay wax lol kersa dana tax su xewal yi yalla indi ci yow ak sagan gi nga sagan nga am ci kersa kersa ci bopam dana dik ci nit koo xam ne booy door doon gone te dara yàqagu la fokk nit ki dana bari kersa ak képp ku yàlla dimbale sa damir nekk damir buy dund mooy nga am conscience buy dund wal wujdaanu daqiiq nga am it looy yëg ci sa biir kooku fokk mu am kersa ak ki nga xam ne yëg am na am na yëgug biir mooy alxis alxisul mulhiq am na ko ndax ker kersa dana waral nga bàyyi xel ne yàllaa ngi lay fuuglu mi ngi may gis ndax yonent bi nee na wa man utiya al imaanu bi jamihi soabihi wa fi taliatiha alxayaau faqad utiya al xayru kulluhu wa man xorima al imaanu faqad xorima al xayaau wa man xorima al xayaau faqad xorima al xayru kulluhu maha rabbihi wannaasi ajmain fa man laa xayaa lahu la rxiwaa lahu فمن حياء فمن لا حياء له لا حواء به ولا حس عنده ولا شعور فيه كو خامني جوخ نان لا يونت بي نينا كو خامني جوخ نان لا ليمان موي گم يالا تي مبولم خاج يم ورا اندال ييب نالا وور ني تا خاج با تي نيك نك اپ تي دولي موي كرسا نالا وور ني جوخ نان لا ييب ييب واي كون خاج ليمان سيلام فاينا ndax bu waa xagn nañ la kersa ta kuñ xagn kersa xagn nañ la yiw yep lola yonent ba ci sa digënté ak sa borom ak sa digënté ak nit ñi ndax ku amul kersa du mëna jaaju du amug yek lim defit du yek ne def na lu garaaw wala dara jëlé nañ ci an abi hurayra radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam sallam qaal alxayaau min al imaani wal imaanu fi ljannati wal badaau min al jafaa'i wal yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlee nañ ci Abu Hurayra mu ne kersa ci ngëm la bokk ngëm ci àjjana la dëkk albazaau basia basia mooy ku ñaaw làmmiñ ñaaw làmmiñ ci ngel nit la bokk te béccingeel nit ci sawara la jógee kuy béccingeel nit rek yor nga jikko joo xam ne ci sawara nga ko jëlee yàlla na ci yàlla musal sallallahu alayhi wasallam wax na ne jëlee nañ ci ibnu Umar radiyallahu anhu xaala sallallahu alayhi wasallam واخنا الحياء والايمان قرناء جميعا فيسار فيها احدهما رفيها الاخر فانت ترى ان الحياء قرين الايمان ومن لا ايمان له لا حياء عنده ومن لا حياء عنده انسان واهل اليقين واهل اليقين منحرف السلوك غليظ الاسلوب واذا كان عندك من فضيله سامله وخلق جامع فليس هنالك سوى خلق الحياء jëlee nañ ci ibnu Umar mu wax ne kersa ak ngëm dañ leen a lëkkale mënuñoo tàqalikoo bu benn bi demee rek ba ci des dem kon kersa moo lëkkoo ngëm ku amul ngëm du am kersa ku amut kersa nag nit la ko doyee di ak kóolutif ab ab ab ay saawoom it faw mu jeng mooy ay jaar-jaaram dana doon koo xam ne ku ñagas la du neex a jëflanteel kon bu ñu doon wax ngëneel loo xam ne moo ëmb lépp dañuy wax ne loola mooy kersa ku ko làq wa man ahrasahu wa huwa muminun faqad ahrasal faqad ahrasal xayra kullahu wa faasa wa faasa bi sharafi wa ridwaani fi dunia wal axirati képp koo xam ne làq nga ko tadib jullit day na la wóor ne boo xasee am kersa te dib jullit yiw yëpp daje na ci yow te texe nga ci tedd nga am nga honneur bu rëy am nga ngërëmul yàlla ci àdduna ak ci àllaaxira moo tax tarbiya li muy njëkk a def ci nit mooy fexe ba nit am kersa wa taxarisu tarbiyatu ala inhaasi suhuri fil insaani wa hansa suhur yan basi xawaanhu alxayaa ak yëg lay njëkk a def ci yow njëg googu nag kersa la lay njëkk a jural xataa yataxawala haasal xayaaw ila taaxatin muwajjiha fi wusiha at taqwiimu wa tawjiihu wa tafsiru wa tarshidu ila kulli xayrin kersa lay njëkk a def kersa googee na day soppiku nekk kattan mel ne énergie ci yow boo xam ne moo lay jubbanti boo xam ne dana mën a jubbanti dana la mën a gisal dana la mën a wax ne lee yiw dana la mën a wax ne lii ab safaan la bu ci tàbbi wal kaf wal iqla lii ëpp naa dugg dana la aayes ay yëpp xanaa ku ne xam sax xam na sax ne ana sax waxat laa yaxfa ala ahadi ana dahaba alxayaa yuwaddi fi l insan ila alwaqaati wal mawti al adabi wal ijtimaai isman laa xayaa xindahu laa xayaata lahu wala kiyaana wala insaniyata lima laysa liman sahaba hayaahu liman zahaba hayaahu laa hayaa lahu wala kiyaana wala insanat liman zahaba hayaahu koo xam ne sa kersa dem na da ngay daal dugg ci ñàkk kersa say tejj ne day dee ni ngay jaxasoog nit ñi dudoo ko xam koo xam ne amoo kersa day mel ne dundatoo day mel ne amatoo day mel ne sa ak sa nite dañ na laysa liman zahaba xayaauha saarin xanil xabihi aw saajirin xam xabiisin waaw kay képp koo xam ne sa kersa dem na luy dog sa digganteeg lu bon amatut ak lu lay jaaju ci lu xabiis laysa liman dahaba xayaauhu saarin anil xabihi moom laa waroon wax aw saajirin an xabiis doomu aadama bu ñàkkee kersa rek yonent bi melal na ko foo xam ne day أه، يحبط من رسيلة إلى أرسلين ولا يسال يهوى حتى ينحدر إلى الدرك الأسود بو خاسي نياك كيرسا رك ياغي واتش ديغندي واتش ديغندي واتش ما اغ فا غنا سوفي يونت بي ملال نكو نك ملال بو غات واخنا ني اذا اراد الله ان يهلك انسانا نسها منه الحياه فإذا نسها منه الحياة لم تلقه إلى مقيتا ممقتا فإذا لم تلقه إلى مقيتا ممقتا نزهت منه الأمانة في ساعة منه الأمانة لم تلقه إلى خائنا مخونا في لم تلقه إلى خائنا مخونا نزهت منه الرحمة في ساعة منه الرحمة لم تلقه إلى رجيما مهلنا في لم تلقه إلى رجيما مهلنا نزهت منه ربقة الإسلام يننت بتنكنا خوف نينا دوم آدم بوكو يالا بغي ألك day dindi ci moom kersa bu dindee ci moom ci day nekk kuñ sànj moom ci boppam day nekk koo xam ne day bañ ñëpp sànja ci wolof mooy bañ nit ñi te ko teg fenn bañ da ngay nekk nituk sànja moom it ñëpp dañ koy dañ koy sànja maanaam dañuy jekk bañ ko boo ne nekk nga ak euh, di kuñ sànja yewet nga sànjaa amaanatu gi ma doon waxtaane daaw jéeg day dañ ci yow du doo am amaanatu mooy kóllëre kenn dootu am bu ko ma amaanatu dañatee ci yow coloré mooy tax lu bari nga di ko bàyyee xel boo xamee ne si coloré yi dañ na ci yow ak workat ngay daal nekk di ku ñuy worit ñi ngi siqal dañ lay war yonent bi nee na boo xamee ne si nekk nga nag di xaayin maqoon xaayinan maqoonan xaayinun maqoon boo ko xasee doon workat nit ñi di la war yërmane day day dañ ci yow bu yërmane dañee ci yow it nga daal nekk seytaane suñ feeñal boo nekkee seytaane juñ feeñal buumug lislaam dañ ci yow yanañ ci yàlla musul kon noonu la yàlla noonu la yonent bi toftalee marax yi tolluwaay yi nga xam ne saa boo ñàkkee kersa fii la la yóbbu jëlee la fa yóbbu la fee jëlee la fa yóbbu la fee ba génnee la ci diine lislaam kon yonent bi sallallahu alayhi waxaat na seneen ne ما كان الفحش في ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه نينا نيوتيف دو نيك سي دار ناري بو داكو نياوال واي كيرسا دو نيك سي دار ناري بو داكو رافيتال كيرسا نا نيتي خير لا موم لاي تيجي كيرسا نيتي خير لا احدها حياء الانسان من الله تعالى ben moy kess gi ngay am ci diggante sa borom wa yakunu zalika bimtisari awamirihi wal kaffi an sawajirihi bi uh, ku ne war nga am kess sa diggante ak yalla moy bu njëkk bi wa lool nuñ koy amee nak mu ne moy nga top ndigal yi ndax rusko yim la jagg yep na la bu ko def nga bayiko ndax rusko rawa ibn masud radiyallahu anhu annabi sallallahu alayhi Wasallam, qala استحيوا من الله حق الحياء يونت بي خالا نينكول دان خالا من حفظ الراس وما وها والبطن وما هوى وترك سينة الحياة الدنيا وذكر الموت والبلا فقد استحيا من الله حق الحياء يونت بي ابن مسعود روى ابن مسعود رضي الله عنه جيلي يونت بي نه يونت بي نينا كرسا وولين سين ديغنتك يالا دغ دغ كرسا ñu ne ko yee euh, dëgg-dëgg kersa yonent mooy lan mooy sabab bi ak lim lim ëmb lépp dee ko wattu te yàlla tax lu ne dee ci bàyyi xel yàlla ci muy bët yeeg nopp beeg xel meeg lépp wal bat na maa xawaa sa li ngay ciy dugal lépp dee ko wattu ngir yàlla te it ëppalante bi adduna bii ak euh, gëppante bi bu ci am soxla waxtu bu deel fàttali ko dee di fàttaliku ne lawyer yor dana rap inal jadidaini isa mastawlaya hala jadidin adna ya hulil bila ñaar aduna aduna adduna ak lawyer bëccëg yor lu yes lu ne buñ ci yagge bagante loola rap loola borom xam-xam bu wax ñaarel ba moy kers kers gi nga wara am ci digeentek do doomu aadama waa maa xayaawul insaani min annaas fa bi kaffil asa wa tarkil mujaharati bil waaw sama morom daara doomu adama bu ma bëggee am kersa ci moom nu may def mu ne nee na mooy bu ko bu ko indil benn lor bu koy bu koy sonal benn lor te bu ko njéeméerlu wax ju bon boo ko defee sa sa morom doomu aadama kersa gi war sa digganteeg moom jox nga ko ndax yonent bi waxat ruwiya ani nabi sallallahu alayhi wa sallam min taqwallahi ittixaau nnaasi yonent bi jëlee nañ ci moom mu bokk na ci ragal yàlla rag xel bindee fi ba melne ragal sax ngir ngir yalla bok lool bok na ci ak ragal yalla moy matal ak ragal yalla deug deug amna na wenn waykat bu wax ne walhamdu khairu mattaqatta huddatan wa anfasul adqaari min bahri tuqa fexe ba am cantug nit ñi walhamdu gok cantug nit ñi la ciblu lepp lu way bëgg bëgg ko def mu diko wajal waajal fexe ba am cantug nit ñi moko gën ci mom ginnaw mbolim ndaxante fi yi ginnaaw bu ragal yàlla jàllee fexe bu am cantu nit ñee koy gën ba ko deseel ba ko ñetteel mooy kersa ci sa bopp ku ne war nga am kersa ci sa sa bopp fa yakoonu bil xiffati waltisa waa maa xayaawul insaani min nafsi fa yakoonu bil xiffati waltisaami sidqi wal fadaili qaala badu qaala badu lxukamaay li yakun istihyaauka min nafsika akthara min istihyaayika min gayrika nee ku ne war nga fexé ba am kersé ci sa bop ne nu may amé kersé ma manam moy fexé ba fegu lu bari duma ko nango def ngir bañ ku yak sama der ngëneel yi ma dégg yépp ak dëggu lu may wax ci yow mu doon dëgg ci man ngëneel yi ma dégg yi diko wax ak borom xam yi diko wax ma ci jim luma man ngir wu sama digënté sa ngir sama digënté sama bakkan sama bop bar amna ben borom xam-xam wax ne sax ni ngay kersa wacc sa bop mo wara a ëpp ni ngay kersa wacc kanen wa ndax bu kersa gi maté rek lépp mat fa maté kamul xayaawul insani min rabbih wa min an-nas wa min fa hat kamulat nafsihi faxat kamoonat fii asbaabul xayri وصحبت عنه wa sara bil fada'il بالفضائل bil jamil مذكورا képp koo xam ne fexe nga ba kersa gi dox sa diggante sa borom matal nga ko kersa gi dox sa diggante sa bopp matal nga ko kerse gi dox sa diggante kaneen matal nga ko ay sababi ay yëpp dem na ci yow ngëneel yëpp it wut si nañ la te it na la wóor ne fu ñuy tuddati lu baax wala ku baax dañ la ci boole loolu tax nag moo tax nag lii ñu sëñ Tuubaa sën sant ma tëjale leen ko wax ji daa wax ne wastan yi min nasari rabbika alkarim fa hadamul xayaayi siimatul layim ndikk doomu aadama bi del am kersa ci yàlla mi lay xool ndax ñàkk kersa jikkoy ku yamaay la mooy soxat boobu ma la doon wax moom la sëñ Tuubaa jëfandikoo mu dellu wax ne bal naafihu lasi ba naafihu xilmi lasi xat xallama fatan xuyoo ba nafsihi wa xalima وجره للصبر والسخاء والحلم والإخلاص والحياء خم خم صح بيتي أم جرين موي بلا خمال سا اي بوب ني ني لاكو دون واخي باغا خام تم خاتي لا جيمي لا سي مون خاتي لا جيمي لا سي تابي خاتي جيمي لا سي لات خاتي جيمي لا سي اخلاص موي لو ديف يالا تخ ولا حياء بوكو تيجي نك موي nga مو جيمي لا سي كيرسا خام خام بلا ام جيرين دافا اند كيرسا لولو سيغ توبا واخ كون ديكي لو ني كيرسا گن سين توبا بي وخات فينن ني وان افضل الانواع في المنافسه صبر على الاله بالمجالسه له واسقاء اليه وحقوف هم من عليه عند امن ومخوف والصبر للحب له وللحياء منه وهب لقضائه هي وهو السكون عيش ما جرى الخدر اليه قد كان بنف او ضرر ولا يكون غير ما يريد ولو حرصت ايها المريد ومنه ياتي النف والضر معه fanahyahu tanib wa amrahu ba seigne touba dafa wax ne xeeti yi ñi ëppalenté yépp mana ba muñ mën a jekkiwaale ak yàlla loolu ak muñ a koy def moo ci gën ak di xerawlu yàlla sa itti jëpp nga jëmee ko ci yàlla ci boo ragalee ak boo ñemee bu sa xel dalee ak di muñ ngir ngir sopp yàlla waye di muñin ngir kersa wo yalla mom gis nga fi mu ko indiwaat foofu kersa wo ne mi ngi may gis ak sop gi ak ak muñit ngir ak ak ak ak eh, nga nga sop dogalu bi yalla bi ba nga ne lu bi yalla bi indi rek neex na la mom nak mom mi wax mo ag ci tan lola ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabru yalla man boo ma joxee sant naa la moo la laajee te joxoo ma gërëm naa la te maa ngi muñ muñ gu rafet moom mi ñuy digal lii la foofu la ne woon la yàlla moo tax mu ne nag da ngay fexe ba gëm bëgg dogalub yàlla ndax loola nag mooy lan mooy fu dogal bi jëm nag neex la moo xam njariñ la moo xam lu la ndax yàlla kat lu ko neexut du yow taalibi bi loo xir xir xir yow doomu aadama bi loo xir xir xir lu yàlla bëggut mënut am njëriñ ak lor ci yàlla lay jóge kon nag bàyyi li tereem te lu ci ndigal kon fi mu ko tëjee rek laa ko tey tuubaa liman yaquuduhu hijaahu doona hawaahu lii di daa moo ajjana ñeel na koo xam ne fexe na ba xelam di wommat banneexam ndax ko sax ko xamne ne sa sa xel ko ko xamne ne sa xel moo woomar sa banex rek jëmele ci ngeerumul yalla neen koku may texe ndax bo boko difut rek banex bi mooy womat xel mi yalla nti yalla musal wa kullu amin wa antum bi xeyrin assalamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh Yeah.